Sénéinfo International. chers internautes Sénéinfo International Sénéinfo point net dal nag jàmm su lu gën a fës euh, ci xibaar yi euh, tey euh, jeudi 28 décembre 2023 Sud Quotidien lañu commencé moom ci année 2023 bi la wax mu ne une année pas si gay donc moom dafa def rétrospective année 2023 mu xamal ne daal am na ay points yu bari yoo xamante ne war nañ ko xoolaat lu mel ni euh, immigration irrégulière bi accident de la route incident des marchés trafic de drogue donc bu ñu sukkandikoo ci journal bi euh, lii nii moo tënk euh, année bi nga xamante ne moom moo amee année 2023 moo tax mu ne dans sa une 2023 une année pas si gaie donc ñu des rek ci journal bi mu ne élection présidentielle du 25 février le le premier faux pas au conseil constitutionnel donc loolu la journal bi xamle par rapport ak. li nga xamante mooy tirage au bi euh, demain incha allah lañ ko fixé tey lañ ko waroon fixé ci jeudi bi mais demain euh, lañ ko war a amal fa nga xamante ne moom mooy conseil constitutionnel donc euh, journal bi ci si àdduwaat na élection présidentielle du février comme nañ leen ko waxee léegi le faux pas le premier faux pas au conseil constitutionnel Euh, Vox Pop moom moom dafa ñëw euh, si li nga xamante ni moom mooy euh, réunion bi nga xamante ni def nañu ko fële nga xamante ni mooy palais présidentiel ñu ne préparatif de Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 donc li nga xam ki nga xamante ne moom mooy mairie de Dakar du ci bokk wala Barthélémy Dias parce que dañoo ne la réunion du palais qui fâche Barth les menaces les menaces du maire de la ville de Dakar après le conseil présidentiel d'avant-hier loolu la journal bi xamle tey dans sa ñu des rek si journal bi mu ne euh, Sonko investi ce 30 décembre donc nga xam te moom mooy Ousmane Sonko euh, comme ni ñu ko xamee moom dinañ ko investir euh, fa nga xamante ne moom mooy terrain ak après ce journal bi ñëw di ñu ko xamal journal bi ba tey rek mu ne kii l'État prend les mesures au sujet des pouponnières affaire pouponnière bu kër Yaya Mandel bu Ndella Madior jouf li nga ki nga xamante ne moom Macky Sall jël na si dogal pour. vraiment ñu def si ay jéego pour lutter contre l'impunité donc euh, ñu des rek si journal bi mu ne Dakar euh, Dem Dikk se dote de trois cent euh, soixante-dix nouveaux bus et les gens s'injectent dans le circuit ce jeudi donc tey jii la ñuy bus yooyu commencé daw progressivement si circulation bi si dëkk bi. le quotidien moom dafa ñëw ci euh, euh, reprise des cours en présentiel université Cheikh Anta Diop de Dakar mu ne lettre ouverte la la euh, la faculté des lettres et sciences humaines reprend le 30 le 3 janvier sans l'aval du conseil académique loolu la journal bi xam ne mu ne le coude reste fermé hypothèque sur la présence des étudiants donc ci ouverture boobu pour cours yi commencer en présentiel ki nga xamante mooy faculté des lettres et des sciences humaines moom. Euh, moom dafa war a euh, démarrer mais euh, conseil académique bi amul amul ndigalu conseil académique bi donc loolu la journal bi xëy di amul ndigalu conseil bi donc loolu la journal xëy tey fasal à sa nu ñëw rek si mise en circulation BRT bi donc mu ne la BRT sur sa voie le 11 janvier donc nga xam ne moom mooy BRT bi na commencé daw digg 11 janvier bii di ñëw. donc euh, ñu des rek ñu ne Mbour pour calmer les détenus le procureur et deux juges à la MAC aujourd'hui donc ki nga xam ne procureur Mbour dina dem à la euh, pour seeti ñi nga xam mooy mooy détenu donc suñu fàttalikoo si fan yi si ginnaaw détenu yi dañoo defoon na benn euh, dañoo géddoon lekk benn jour donc di bëgg daal ñu gën a taxaw si seen dossier donc Walf Quotidien moom dafa ñëw ci euh, attribution de la 5G ne la RTP fausse euh, le jeu li nga xamante ne moom mooy euh, présidentielle bi aussi mu waxaat waa li nga xamante ne moom mooy présidentielle 2024 bi aussi waxaat na ci mu ne le Pastef aligne quatre mousquetaires loolu la journal bi titré donc ñëwaat encore rek ci front commun du SYTJUST et de l'UNTG les tribunaux paralysés donc grève SYTJUST bi mu ngi wéy ba tey donc adopté woon nañu soixante-douze heures euh, barki démb donc grève baa ngi woy rek loo xamante li nga xamante ne moom tamit euh, dafa paralyser le système judiciaire euh, temps yi donc moom mu ne les sept sages violent les règles donc loolu la def à une mu ne le greffier du conseil constitutionnel reçoit jusqu'à la date échue dossier de déclaration de candidature mu ne pourquoi une telle prolongation donc journal bi loolu la interrogé wu donc mu ne près d'une centaine de candidats ont déposé donc journal bi loolu la ñëw euh, xëy xamle ñu des rek ci journal bi mu ne 54 ton de produits périmés toxiques d'une valeur euh, de cinquante millions de francs euh, saisis donc ñi nga xamante ne moom mooy limier yi wala ñi nga xamante ne moom mooy. Euh, brigade brigade de service des jeunes moom saisir na produit yooyu noonu euh, d'une valeur de cinquante millions de francs CFA journal bi dañu ko xamal ñu ñëw rek ci insécurité ah nee na l'insécurité gagne du terrain mu ne les les agresseurs dictent leur loi donc les des bandits euh, au grand boulevard s'installent à Dakar Mbour et Touba donc ñu ne à trois à trois à bord de moto ils opèrent disparaissent dans la nature donc Sénégal wóorul ndax temps yi agresseurs yi dafa bëri ñu ngi si dëkk bi partout donc journal bi ñëw euh, defal nañu ko euh, dans sa une le soleil moom dafa ñëw rek euh, si li nga xamante ne moom mooy euh, transport interurbain bi mu ne la société de transport public Dakar Dem Dikk mu ne le parc s'enrichit de trois cent soixante-dix nouveaux bus donc euh, mu ne infrastructure routière autoroutière et ferroviaire en réunion du conseil des ministres hier le président a demandé une évaluation d'impact loolu la journal bi xëy xamle ñu ne candidature à la présidentielle 93 dossiers réceptionnés dont 23 23 en attente donc loolu la journal bi xëy euh, tey euh, fasal euh, à sa une Direct News moom dafa ñëw rek ci 16 ans après la disparition de Euh, Serigne Saliou Mbacké mu ne 16 euh, ans déjà que nous quitté euh, Serigne donc journal bi ñëwaat rek mu ne hormis l'islam et par gestion de l'héritage de Serigne Touba rien ne saurait retenir mon attention encore moins susciter de ma part commentaire et directive quelconque di donc journal bi dafa ñëwaat ci kàddu yi nga xamante ne kàddu yi nga na koy jàll doon na koy jàllale donc ci kàddu yooyu rek la des ñu ne confie-moi les enfants que j'accomplisse en un ce que le grand cher avait réalisé avec les anciens, déclarait le saint homme. Mon encore le témoignage éprouvant de Serine Muntaka Mbake, un monde de acquisition en janvier 2022 à grands frais dans l'imposant immeuble à Taverny, en France, destiné aux talibés et par décoché à tous les musulmans. l'œuvre colossale de Khelcom et dara de référence donc journal bi dafa def gëstu bu yaatu ñëwaat ci li nga xam ne Saliou Mbacké donc lu nga xamante ne moom vraiment loolu la def fii si euh, kaw suuf donc journal bi ñëw defal ñu si gëstu bu yaatu yaatu après 16 ans euh, après euh, moom bu mu génnee àdduna record kii la enquête moom dafa ñëw si présidentielle bi rek mu ne près de 100 dossiers déposés record de candidature donc loolu la fasal si tey dans sa une mu ne euh, encore euh, les directives les nouvelles directives de Macky Sall sur les transports euh, aériens sur les transports terrestres du moins c'est donc Amadou Ba notre objectif est de doter les autres régions de BRT donc ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba xam ne na ne BRT du yem du yem Dakar rek ak banlieue am mais euh, à l'avenir dañoo bëgg mu dem ñu décentraliser ko ba mu jot si région yi donc loolu la Amadou Ba xamal na conseil des ministres bu ko interministériel bu ñu doon amal euh, démb journal bi xëy fësal ko tey à euh, les échos dafa ñëw rek ci motivation pour la coupe d'Afrique des nations loolu la ko waxee mu ne l'État double la prime de participation des lions donc ñi nga xamante ne mooy mooy lions yi ku nekk dina recevoir huit millions euh, de francs CFA avant la CAN donc euh, ñu ne une chambre une chambre cinq single une chambre single pour chaque champion d'Afrique soixante chambres réservées donc loolu la journal bi mooy conditions yi nga xam ne joueurs yi moom fi moom lañ fay nekkee donc journal bi ñëw fësal ko di xamal ne aussi balaa ñuy dem si euh, coupe d'Afrique bi CAN bi donc joueur bu nekk dina recevoir une avance de huit millions de francs CFA ñu ne cette situation choc consécutive l'affaire Ndella Madior Diouf Macky Sall prend un décret pour réglementer les pouponnières donc euh, ki nga xamante ne Macky jël na dogal pour réglementer les pouponnières les pouponnières euh, journal bi ñëw dina ko xamante euh, dans sa une. ñu des rek si journal bu mu ne présidentielle 2024 mu ne coalition Sonko s'agrippe à la jurisprudence euh, de Vincent et annonce son investiture pour le 30 décembre donc ñi nga xamante ne moom Ousmane Sonko comme nañ leen ko waxee te la euh, le 30 bii di ñëw lañ koy investir fële si terrain Agapès bu Parcelles Assainies donc euh, li nga xamante ne moom mooy